di xanaa am euh, yi di ko déroulé ci biir Touba yëpp parce que ñu ngi def le tour des centres mais fépp euh, euh, pour le candidat président Macky Sall vraiment am nañ mbégte lool ci maturité bi nga xamante ne la tey population Touba wane nañ ko ci jàmm ak dal dem def seen droit citoyen delluwaat seen i kër ci jàmm ak dal. le plan d'organisation sant suñu borom ci plan d'organisation bi parce que vraiment organisation bi. jaar na yoon lool euh, sécurité bi doy na nit ñi ñu ngi wote ci jàmm i kër ci jàmm euh, lii mooy démocratie euh, di ñaanal suñ Muntaxa suñ borom may ko wér ak gudd fan ñaan yim def ci élection yi déroulé ci jàmm ak salaam nit ñi gisagun nañ ko donc ñi ngi xam gëm ne lii mooy continuer fii ba ngoon donc vraiment ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gëdee ñaan jigéen ñi ci des di togg añ ak yooyu bu ñu liggéeyee ba noppi ñu génn def seen droit citoyen yi taux de participation ndax xel dal na tey xel dal na bu baax a baax a baax commencé naa feeñ parce que centre de vote boo dem gis na jigéen ñi ñoo fa ëpp vraiment nit ñi am nañ pas pasu tey def seen droit citoyen yi ñi ngi sant bu baax ah, en tant que parent euh, ah, en tant que parent sant bu baax xanaa di leen gën a wax ne que ni ñu xëyee élection yi nanu ko continuer nanu wote ci jàmm ak ci dal euh, delluwaat seen i kër déglu résultat yi que le meilleur gagne euh, di ñaanal suñu borom ci barki Serigne baa suñu candidat gagné président Macky Sall